daaray làmp gi dafa am mbootaay gu nekk daaray làmp mbootaay yooyu xale yi nga xam ne seeni waajur daf cee bokk ak yeneeni xale ay kaye fourniture école ya ma nga ne ministre moo leen ko jox jàppale leen ko Babacar sàll moo koy séddale ku ci soxla ñëwal ci Babacar sàll dina ko séddale di ko séddale di ko séddale ba mu jeex tàkk